te defal leen tawféex fa ñu nekk barakatu xaadim rasul ni ma doon lim léegi ci ne commission yi ñoo yor liggéey bi euh, nii la tëddee euh, maanaam commission organisation bi nga xam ne ñoo yor liggéey bi nga xam ne taxawaay bu am am solo bu rëy rëy rëy boo xam ne ñu ngi koy taxaw ci ci ci ci liggéey bi di ko tàmbalee ci 9 ci suba maanaam daanaka fajar ci lañuy ñuy ñëw ngir raxas bagage ba 23 heures ci guddi ñu toppatoo xéewal yi buñ noppee ñu raxas barab bi setal ko ba mu set taxaw naafila gi bañ naafila ba noppi ñu doog a dem loolu di liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne bis bu nekk te loolu tërëwul tamit kenn ku nekk li la war ci liggéey bi muy sa addiya euh, def nga ko muy commission boo xam ne mbooloo mi nga xam ne ñoo ci nekkoon di ci liggéey mat na juróomi téeméeri nit juróomi téeméeri nit mat ci ay membre ci ay góor ak ay jigéen ñoo fi nekkoon di saytu liggéey bi doonu liggéey bu yomb waaye moo ay sous yoo xam ne ñoo koy ñoo ko ñoo lëkkaloo ci loolu ñu ko def moo xam ñi nga xam ne ñooy raxas bagages yi ñuy defar xéewal yi ak ñi nga xam ne ñooy defar barab bi di ko set bu noppee ak ñiy jubbanti sàppe yi ak ñi nga xam ne ñooy taxaw naafile yi ak ñi yor sécurité bi ñoom ñëpp ci biir commission boobu lañ bokk tamit ñu ngi leen di sant bu baax am na benn commission islamiya yi ñi nga xam ne ñoo yor wàllu communication ñoom tamit mbooloom mi ci nekk liggéey bu am solo def nañ ko ci biir koor bi mooy ñoo doon euh, tisaare waxtaan yi yëpp ba képp koo xam ne yaa ngi ci biir réew mi wala bitim réew te teewoo ci barab bi mën cee jot jotin bu leer ci image ak son bu leer di direct mboolem waxtaan yi ak naafile yi ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax mooy ñi nga xam ne ñoo doon jàpp ci liggéey bi moo xam ay caméraman lañ wala ay journaliste wala ay niti rajo ñoom ñëpp ñu leen di sant ñi nga xam ne ñoo doon topp daayira bi tamit euh, ci situb daayira bi muy muy muske Touba ak GMT ak MKTV ñoom ñëpp euh, ñu ngi rafetlu seen liggéey liggéey bu rafet na lool. di sant yi taxawaayu site yi nga xam ne ñoo jëloon signal ci site Moukhaddamatoul Khidma muy Bichri TV Académie Minane Rafa TV Touba Vision Al Khadimiya Salamia TV euh, Sunu Info TV Timis TV Siiwal TV ñoom ñooñu ñëpp dañ doon jël signal ci site GMT ak MK ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di baral cant télévision Lamp Fall TV ci taxawaayam waxtaan yëpp daf koy direct ak rajo bi di leen di leen beral cant ci seen taxawaay ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di sant mboolem ñi nga xam ne ñooy ay rajo te nekk ci dëkk bi di ci beralu cant rajo jant bi rajo jant bi ak ceeñeeram ndax lépp luy waxtaan yi ak naafila yi dañ ko doon jël di ko jàllale en direct googu ñu ngi koy teg ci loxol Serigne Cheikh Aliou euh, waxtaan yi ñor na lool ñu ngi koy sant bu baax di la yi nga xam ne ñoo doon def direct ak yi nga xam ne tamit su waxtaan wi noppee dañ koy jàllale ñoom it mën nañ cee lim ICAP Touba Fall FM Walfajri FM Sud FM Sik FM Touba Mbacké FM Ñaaxeen Benno Biral ak jant bi rajo jant bi ak ceeñeeram ak leer gi ñoom dañ doon jàllale direct waxtaan yi ba noppi di ko di ko tegaat ci diiru koor ñoom it ñu ngi di sant bu baax di leen gërëm ana beneen commission boo xam ne ci niñ ko limee léegi boo xam ne bu am taxawaay la ci liggéey bi commission sociale ñoom it ñu ngi lu seen liggéey euh, délégation yi nga xam ne ñoo doon wuy si dalal nañ ci lu mat juróom-ñaar fukk ci ay mbooloo kilifa yoo xam ne ñëw nañ fi ngir ànd ak ñun liggéey taxaw ci taxawaay bu rafet am na ñoo xam ne yónnee nañ fi seen i ndaw am ñoo xam ne yéene nañ fi seen i barkeelu am ñoo xam ne sax dañuy woote téléphone di rafetlu liggéey loolu it ñu ngi leen di sant bu baax ndax xam ngeen ne liggéey bi ren dafa yaatu lool ndax dañ daa def ndog yi ci wet bi féete nii rek ak kër Sëriñ Fall léegi liggéey bi dafa dem ba taj ba ci wet bi féete kër Sëriñ Sall nga xam ne suñ doon xayma daaw buñ doon xayma liggéey bi ci mbooloo mi fiy daje doon na man ñeenti junni nit ak lu topp ren ji daanaka buñ ko xayma jege na lu tolloog bët bu set daanaka juróomi junni ci mbooloo euh, lim bu bëree bëri la ci ab ndax gis nañ ne nit ñi dañuy gën a ñëw te dañ koy a aajo moo tax bokk yi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñu ko waxee léegi di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak kilifa yépp eh, suñu affaire bu ñëwee dana ci dana ci dana ci sant dana ci jot di cat yi du ñàkk xëy na am ñoo xam ne dañ ci am ay taxawaay yu mu rëy rëy yoo xam ne eh, mën nañu leen ci seetee waaye ñu ma ko tudde léegi ci opérateur économique yi Alaaji Ablaye ja da ci da ciy dugg waaye bu ci kilifa yi tamit suñ mu ndoxaa mën naa nekk ci bopp bi waaye kilifa yi nekk ci ak ronam ñëpp muy sëriñ Basiru Abdu Xaadir ak kilifa yi fi teewul yëpp waaye mën na ci ràññee sëriñ Basiru Xaadim Awa bi ci taxawaayam ci liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma ci lépp loo xam ne matériel jumtuwaay boo xam ne bi soxla na ko soxla na ko dana ko wut andi ko wala mu seet ku ko man mu wut ko andi noonu tamit la koy defee bu koor gi ñëwee day jàpp ci liggéey bi bis bi mu ànd ak mboolem ay bokkam koy xaritam ngir ñëw teew ci te noonu la ciy taxaw kon moom it ñu ngi koy ci yitte ji nga xam ne ko liggéey bu baax am na commission boo xam ne am solo la ci liggéey bi muy al lajnatu saqaafa euh, ñoom it am nañ taxawaay bu am solo boo xam ne ñu ngi koy taxaw ci liggéey bi ndax ñoom ñooy coordonné mboolem waxtaan yi yi ñuy def te diiru weer yi bu tàmbalee ba léegi ba tey jii sëriñ Mbàkke Abdourahmane bi jeexal euh, def nañ fi ay waxtaan yu am solo yoo xam ne suñ ko doon xayma soo indee lu aju ci wàllu fatawaa muy laaj ak tontu nit ñi nga xam ne dañuy yittewoo seen diine te doon jaar ci numéro whatsapp yi wala site wala site jumaa yi soo dee xool daanaka yónnee nañ fi euh, tontu nañ leen ci lu mat téeméeri laaj ak ñeent fukki ak ñeent. maanaam ma maanaam euh, ci boo ko xoolee ci diirum ñetti fatwa yi nga xam ne def nañ boo ko li boo ko boo ko boo ko boo ko totaalee day man ñaar téeméer ak ñaar fukk ci ay laaj yoo xam ne ñëw nañ fi ñu tontu loolu nag di liggéey bu boo xam ne ñu ngi sant mbokk yi ko doon taxawee ñoom ñëpp bu ñu jëlee cant gi teg ko ci loxol Serigne Mbacke dana jàll ci sunu yeneen mbokk yi Serigne Cheikh Ouna tamit ak sant conférencier yi borom xam yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci liggéey ñoom ñëpp. suñu rakk Mbacke ñag ñu jàkkaarloo kenn la ci ak bëri nañ ñu fi teew ci liggéey bii nga xam ne mooy liggéey day rek dadul teel a tàmbali rek ndax su fekkee ne koor gi des na ñetti weer la ñu tàmbali di dajale proposition mawduwaat yi ak nu waxtaan wi demee ak yëpp ba tënk li nga xam ne moom la war a waxtaan dam liggéey bu rëy rëy dañ koy ànd ak ñoom ñoom it ñu ngi leen ci sant bu baax a baax ren moo tax euh, boo dee xool waxtaan yi ni euh, am na fukki ak juróom-ñett ñu koy wax ay mawdoo am lu ñuy wax ay duruus te ay ay bind yoo xam ne dañ koy jàngal nit ki ci diineem ngir mu man cee jariñu ci lu jege am lu man ñeenti fatwa nga xam ne soo ko dee xool euh, ñeenti fatwa yi ñu ngi ko ci ñeenti semaines yi maanaa semaine bu nekk am benn fatwa ak ñaari duruus am tamit ñeenti mawdoo boo dee xool noonu lañu ko séddalee ci diiru fanweeri fan yépp ba suba incha allah liggéeyu lajnatu saxaafa tamit bokk na ci ci biir koor gi xam ngeen ne naka jekk dañuy tàggat ñiy yëngu ci jumaa yi moo xam imaam yi la moo xam naddukat yi moo xam xutbakat yi loolu tamit liggéey la boo xam ne dañ koy wéyal saa su koor gi ñëwee ren jii amal nañ fi ñetti jataay yoo xam ne ñëw nañ fii ci jumaa ji ngir ñu leen di tàggat ci ni ñuy fexe ba noddu ak ni ñuy fexe ba mën a liqaam bind ab téere boo xam ne téere boo xam ne wolof la ñoom ñëpp ñu tàggat leen jox leen téere bi ba noppi e, jox leen li ñuy wax shahada musaaraka nga xam ne am na ay groupe yoo xam ne am na ñu leen jiite mën a continuer di leen tàggat ci loolu ba ñëw nañu fii def benn jotaay boo xam ne ñoom ñëpp e, yaakaar naa ñu ci bëri ci ñoom fi nekk nii li leen tee ñu qualifié lool ci nodd ba mën koo jàngalee bëri loolu boo dee xool ñaar fukk ak juróom-benn jóge ci ñaar fukki jumaa ak juróom-benn yoo xam ne ñëw nañ fi ñu tàggat leen ci noddu ak liqam muy liggéey bu am am solo te noonu lañuy ñuy wéyale tàggat bi tamit incha allah kon boo dee ci tënk daal ci biir liggéeyu daay Moukhaddamatoul Khidma ci koor gi nii ma ko limee noonu la demee muy liggéey bu yaatoo yaatu boo xam ne eh, liggéey bu Serigne Touba boo xam ne Serigne bi rek gis na képp koo xam ne jëf na ci wala mu yéene woon cee jëf wala mu dégg ko dégg. yàlla na la sëriñ bi fay te defal la tawfeex su ko defee laata sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Moustapha ni waaj a agsi ñoo ngi leen di nuyu di tudd sëriñ Afia Bousso imam ñi nga xam ne mooy jiitu daayira ak Muqaddamatul Xidma mu yónni ñu ay kàddu yu gàtt rek yoo xam ne kàddu yu cant la di kàddu yu ngërëm jëm ci kilifa yépp waaye di tàmbalee fa mu war a tàmbalee muy as cheikh Mouhamadul Mountakha ñuy ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér te mottali ay yéeneen te nu ànd koog moom. lii ak am solo ci liggéey bi lépp mooy ni ñu doon ni ci diirub koor gi. mbooleem ñi nga xam ne am nañ ci ay taxawaay yu ràññi ko sëriñ Abdul Ahad tudd na leen ba mu leer nañ te waxtu wi xat na lool kon du jar ñu di ci jaaraat ndax ci kaddu moom itam ci kaddu sëriñ Afiya rek la doon waxee waaye ñu xam ne ne daal ginnaaw bu mu sante sëriñ Tuubaa gépp tàmbale ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne bi liggéey bii di tàmbali yabal na fi sëriñ Modou Xabbaan moom Cheikh Mouhamadul Fadil mu ñëw ubbi ko bi ñu egsee ci di ko tëj yabal na fi Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Abdoul Khadir mu ñëw di ko teg si kon nag kàddu cant yi nga xam ne moom lañu ñu war a ci moom lott nañ ci jotal ko nañ ko war a jotale waaye teewul nag ñu joxe suñu kent lay kàttan xam la ne am nañu mbégte lool ci liggéey bii bi mu tàmbalee ci ndigalul sëriñ Touba di jeexee ci ndigalul Serigne Touba. di sant itam mboolem njabootu Serigne Touba gi gépp ndax biir weeru koor gi ku nekk ci njabootu sëriñ Touba bi ay kilifa bàyyi koo nañ fa ñëw teewe si liggéey bi seere jëf ci seen alal te loolu it dafa bokk ci li nga xam ne day gën a dalal suñu xel bu baax ci liggéey bi Serigne Touba nangu na di sant itam njabootu Serigne Touba bi nga xam ne ñooy njabootam bu jigéen ñi ñoom itam nii njabootam bu góor gi taxawee ci liggéey bi rek noonu lañu ci taxawee xëy na rek du ñàkk ñu tudd ci ñett ni ñu tuddee ci góor ñi ngir gën koo matale mën nañ cee ràññee soxna Gàdd Buso soxna maam Marème Mbacke moom Serigne Souhaïbou ak soxna May As moom Serigne Abdoul Khadir waaye bu ñu leen tuddee nag dañ yóbbaale seen bokk yépp wuñ leen dañoo am rek la waaye dañoo tudd lañ leen a tudd ngir ñu yóbbaale seen bokk yépp ni ko Serigne Abdoul Ahad defee léegi ci seen bokk yu góor yi jot a tudd di sant itam mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ci wàllu administration tàmbalee ko ci préfet ni ko sëriñ Abdou Lahad waxee léegi ñoom ñëpp teew nañ waaye di sant nag kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu nekkal fii ci jumaa ji ñu suñuy kilifa te taxawu liggéey bi te jiite ko taxaw ci taxawaay bu rafet tàmbalee ko sëriñ Mouhamadou Mamoun Bousso mi ngi nii teew ak sëriñ Amady yi nga xam ne mooy seen kilifa te dañu wax loo ak Cheikh Mouhamadul Amin sëriñ Baara mi nga xam ne. ak sëriñ Mouhamadou Fadil mii nga xam ne mooy jiite taraweex yi ak ñi nga xam ne itam ñooy ñi nekk jumaa ji yëpp di noddukat yi ak ñëpp ñi ci jàpp ñu ngi leen di sant bu baax ndax diggante bi weer yàgg na lool liggéey bi it metti na lool coono yi itam metti na lool waaye mbooleem ñu fi nekk muñ nañu bang bang yi ñu fi nekk muñ nañu coono yi muñ nañu yëpp ànd ak ñoom sax di leen jàppalee ci liggéey ci tëg ci daaneel rek ñuy sant mboolem nag ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira Muxaddamatul Xidma ku jege ak ku sore muy ñi nga xam ne ñooy xëy si di liggéey si ak ñi nga xam ne ñoo ciy def seen alal ak fu mën a nekk rawatina opérateur économique yi nga xam ne liggéey bii ba muy tàmbali ñun la Serigne Saliou boole woon joxandoon digal li te Serigne Moussa mbay ak Serigne Bara Diop nekk ci bopp ba Serigne bi nee na mi ngi leen di jottali ay kàddu cant yu bàyyeekoo ci Serigne bi ngeen jottali ko ko mbooleem koo xam ne jaaral ni ci yéen jëfam te mu egsi fii di sant waa bitim réew waa Amérique waa Espagne waa France waa Suède waa Angleterre waa Côte d'Ivoire waa Mali ak waa Gabon ak euh, mbooleem réew moo xam ne rek dara jóge na fa lu mu néew néew dugg ci liggéey bii ñoo ñëpp ñu ngi leen jot li kàddu yi te di leen jot li kàddu yi gërëm tey ñaan ñu teewaat ko ni ngeen déwén kenn bañ a manqué waxtu wi moo xat